ci liggéey bi gis nañu it suñu bopp ci biir coopérative bi ndax coopérative bi mu taxawee ba léegi gis nañ fu mu féeti béykat yi di ci di di leen jàppale bu baax am nañu ay partenaires yoo xam ne ñu ngi nekk suñu gennaaw di ñu jàppale mooy pakaawo ñu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax fi fi mu fi ñu nekk ni daal wax dëgg yàlla am nañ ci kontaan bu baax di di di di wax it di interpeller it nit yi maanaam nguur gi jàppale waa coopérative yi ndax euh, Euh, fi ñu toll ren daaw gisoon nañ seen lokko ci biir coopérative yi gisoon nañ jox leen ay engrais situation yu bari ba ñëpp kontaan mais ren nag xaw nañ cee gis euh, ay ay jafe-jafe tuuti xaw mu ñu nag lu ko indi moo tax mënuñu cee yàbbi lu lu bari mais ren gis nañ la amoon daaw ak lañu am ren xaw naa wuute ndax ren mel nañ dafa xaw a waaw engrais bi. waaw jiw bi it lañ ko soxla niñ ñu ko soxlee amee wuñu ko noonu. manqué na manqué bu bari loolu nag ñu ngi koy jooju ci nguur bi mu taxawal jàppale coopérative mu ngi leen di jàppale waaye mu gën leen jàppale ba affaire bi gën a jëm kanam. léegi ñun bokk coopérative ñun ñoo ci bokk. mooy waa zone bi yëpp ñu ngi bokk ci coopérative bi. waaw maanaam li daggee euh, Touba Ndiaye Saaw Mekki waaw be Saaw. ñoom waaw waaw ñu dañuy yëngatu ci mbéy. ak ak ak sàmm ak napp loolu yëpp ñu ngi ciy yëngatu loolu ci loolu la ñu def ngi liggéey ci biir forêt bi loolu yëpp ñu ngi ciy yëngatu ma ne environnement loolu ñu ngi ciy yëngatu loolu la ñu liggéey boo problème wullee na ñaay fii ci biir Thiali sonn nañ ci trop parce que boo déggee forêt daa def daa daa def daa nekk ñaari forêt xam nga bande filaaw benn borom tool kalaatu faa béy mais bambur bi nga xam ne fi la ñu juddoo fi la ñu màggee fi lañu ñu sunu lépp fala ne foofu lay problème foofu ngay daggee sa tool ngay liggéey ba ñëw ñu ñëw ci biir foo rek di la jàpp di la di bund katal loolu daal mooy suñu coono waaw di la aman ay 1 million wala ay ay ay ay 500 loolu moom am na ci am nañu problème bu baax aussi béykatu ñaay koo gis tey muy nekk béykatu ñaay dafa tiit ndax ñun ah li ñu xam mooy mbéy gisoo fi benn zone bu dem ci àll bi di dugg ci géej bi di dem ñun ñëpp bu ñu jógee dañu dem ci mbéy mi. mais ndax mel naa ni fii ne ni dañoo am attaque boo xam ne mooy sës boobu bis bu yàlla sàkk day kay ñëw mu naan day nangu tool yi te bu nangoo tool yi ñu ne dañuy ñu màng kër yi te bu ñu màngee kër yi xamuñ fan la ñuy jéemal parce que nit ki nag bu la bu la bu la fekkee fa nga de mu ne la da nga fiy jóge te xamoo fooy ne il faut ci tiitaange képp koo xam ne yaa ngi ci biir zone bi ba tëddee doo nelaw. waaw waaw sës boobu. loolu am na fi mais yàlla def na ñu ngi ci yëngu di di di di di dem di ñëwaat mais nag ba tey des na am bi tey am na. Mhm. Euh, Cheikh président de l'union des sociétés coopérative agricole de la zone des Niayes. voilà donc euh, ni ma ko doon waxee ci tubaab léegi ñun euh, ñooy union bi nga xam ni maanaam ñoo dajale. fukki société coopérative yi nga xam ne ñoo nekk ci zone des Niayes bi tàmbalee ko Ndakaaru ba kera ngay dem Saint-Louis ci ñeenti région yi fi nekk muy Dakar Thiès Louga ak Saint-Louis fukki société coopérative yi yàlla bu taxawee tay ba am seen kayit kayit yoo xam ne méngoo na ak li nga xam ne moom la loi nationale yi ak loi sous régionale yi maanaam acte uniforme OHADA bi euh, tëral yàlla ak gunge bi nga xam ne pakaaw la pakaaw aussi du ñu gunge ci lépp loo xam ne lii mooy ñoŋal d'abord organisation de base yi di ñoŋal mbay mi aussi donc ñoŋal organisation yi mooy d'abord gunge nit ñi ci wàllu ñu yokk seen xam-xam ci naka la ñuy organiser une société coopérative naka lañ koy gérer lan mooy ay fonction lan moo war a nekk ci biir ak société coopérative bu nan la war a liggéeyee muy benn ñaareel bu aussi ñu duñu gunge ci wàllu suñu yokk suñu xam-xam ci wàllu mbayin maanaam technique de production ah, boo bayee ba pour technique de commercialisation ak nanga naka ngay saytoo la ngay jëlee ci mbay mi loolu yëpp accompagnement la boo xam ne PACAW mu ngi ñu koy kii ànd ko ak union bi ànd ko ak société coopérative de base yi donc kon loolu véritablement ñu ko ci sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu yokk loxoom maanaam li ñu bëgg sax mooy projet bi ah bu fekkente ni dafa war a jeex en 2025 ñu yokkaat ko parce que ay société coopérative yu bees la ñu ñi ci gën a mag xëy na ñun ñu ko Coprofel bu Kër Mbir Ndaw la ñun ñoo fi am 15 ans mais bi ñu conformé ak acte uniforme OHADA bi léegi 2021 la muy ñaari at yi ci ñu ngi ci suñu ñetteelu at. donc on est vraiment des organisations yoo xam ne ay xale lañu ci wàllu société coopérative donc accompagnement boobu vraiment dafa dafa dañ ko soxla encore pour que ñu am euh, ay jumtuwaay wax nañu léegi matériel agricole wax nañu léegi jiwu. wax nañu léegi euh, maanaam engrais wax nañu ay produits yoo xam ni moom lañuy aare aaree gàncax gi te loolu yëpp gouvernement bi mu ngi def ay effort mais nag effort yooyu dafa des euh, wax dëgg yàlla parce que bu ñu xoolee li nga xam moom la ñu jot ren malgré effort yi nga xam moom la PACA def pour gunge ñu ci di waxtaan ak ministre di waxtaan ak direction de horticulture li ñu seetlu mooy subvention bi jóge na 70 millions su ma jumul dem 100 millions. mais nag ñun suñu cotage engrais dafa wàññeeku man mii wax ak yéen suma ko coopérative de base par bu ma ko méngalee la ma amoon daaw wàññeeku na de vingt tonnes te maanaam engrais boobu ak jiw yooyu mooy li nga xam ni mooy ñoŋal horticulture tant que engrais bi doyul jiw bu baax di am di ñëw ca jamono bañ ko soxla mbay mi du mën a ñoŋ waaw ren bi xëy na peut-être du am jafe-jafe parce que euh, mën am jafe-jafe sax parce que dès lors amuñu engrais bu doy ah il faut que mën nañu xalaat ni rendement yi dina wàññeeku te bu rendement wàññeeku moom production dina wàññeeku waaw baykat yi góor góorlu nañu bu ñu jëlee soble bi ren vraiment ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax mais nag mu ngi doon gën a baax ci kaw engrais bi doyoon. waaw parce que foo xam ne fii yaa ngi fa a def euh, maanaam 200 kilos par ectare ñu jox la loo xam ne lii euh, parce que bërki démb la ma som benn collègue ni ma man sama coopérative 800 membres la. mais 15 tonnes urée lañ ma jox 15 ton boo ko <laughs> jagalee la 800 membres koo xam ni ki dafa am ñu bootu ci ginnaawam membres yi moo ñi nga xam ne ñoo adhéré mais borom kër bu adhéré am na say doom yu nekk sa ginnaaw say jarbaat say soxna yoo xam ne ñu ngay bay moom ci boppam dafa jaaxle mu ne ma mais man est-ce que dinaa ko jël yóbbu ko parce que su ma demee nu ma koy séddalee xëy na peut-être ay pot libre laa jël di ko séddale kon loolu vraiment mën na impacter rendement bi bu baax a baax a baax te bu rendement bi baaxul production bi mën naa wàññeeku. te vraiment dafa jot euh, ñaay bi ñu jàppale ko ndax jafe-jafe yi bëri na wax nañu engrais beeg jiwu yeeg euh, produits yi mais ci wàllu suuf sax suuf si sax mais euh, il faut que zone de restauration bi par exemple mais ñu am ci taxawaay protéger aussi ñaay bi parce que dama dégg ñaari kàddu ci monsieur le président de la république bi ci njëkk mooy def ni woon nañu def un plan de développement de la zone des Niayes mu doon loo xam ne li soxla nañ ko parce que zone day jaay ni ñaa ngi koy fàkk di ko def ay kër fu nekkoon tool nit ñaa ngi koy sëkk di ko def ay kër muy suuf suñuy ñàkk euh, euh, euh, industrie yu ñu ngi ci ñii industrie chimique yi dama ni voilà bëgguma de tour pour kii mais industrie yi ñu ngi fi xam nañ ñoo leen ñoom ñëpp phosphate beeg zircon beeg yëpp ak autoroute bi aussi autoroute bi aussi lu lu bari la jël ci ci ci diwaan bi waaw donc président bu demee ba ne nañ protéger ñaay bi kon dañu war a taxawal plan boobu. Euh, deuxième idée bi mu waxoon mooy nañu def agropole ouest agropole ouest bu dem nekk ci ñaay bi agropole nag bu ko dee wax dafay doon ay euh, bërëb yoo xam ne dañ fay def ay investissement yu yu yu dëgër yoo xam ne day gën a ñoŋal mbay mi investissement ci wàllu infrastructure de production. ci wàllu infrastructure de stockage ci wàllu production bi ci boppam jox nit ñi engrais jox leen ay suuf yu doy te loolu am nañu zone bu ñu ko mën a defee zone de restauration bi ñuy wax bu ñu ci déclassé wuñ une partie avec un plan d'aménagement bien raisonné derrière dinañu war a képp koo xam ne kii industrie impacté na la wala autorite impacté la wala ñu nangu sa tool parce que viabiliser nañ ko def ko kër ñu mën laa jox ci biir euh, foofu ñu aménagé ci zone de bi ci agropole ouest bi nga mën faa liggéey véritablement. taxaw euh, position bi nga xam ne taxawaay bi nga xam moom la zone des Niayes am ci wàllu horticulture biir Sénégal mu maintenir ko wala sax mu yokk ko mu jëm kanam. voilà merci beaucoup. donc euh, dañoo ñëwoon tey jii euh, comme niñ ko defee woon daaw fekkee deuxième assemblée général ordinaire wu société coopérative Sokone parce que ñun pakaawu bañ ñuy taxawal dañ ñu ne nañu fexe ba créer condition yoo xam ni. Sénégal dina mën a am ay société coopérative yoo xam ni dañuy euh, sax ba faaw donc ci loolu lañ taxawee ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom et ñu xam ni ñoom gis nañu seen njëriñ ci coopérative ñu gunge leen ba ñu taxawal coopérative ba coopérative yi taxawee ñu ne ne ñi ngi seen wet pour ànd ak yéen tamit ba seen coopérative mën a dox na mu waree dox ñu def ko ci ñetti fànn. benn bi ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ci boppi coopérative yi ñu leen jëkk a tàggat taxawu leen jox leen ay jumtuwaay yu ñu mën a téye seen coopérative te liñ fi gis tey wane na liggéey boobu ñu doon def ñoom quand même am na njëriñ ndax ñu ngi koy doxal ñaareel bi moo doon taxawal leen jàppale leen tamit ñu am ay euh, jumtuwaay ay ay man-man ay xam-xam yu ñu mën a liggéeyee ci développement wu seen activité de production horticole E loolu liggéey nañ ci ñoom mais dañoo ba liggéey tamit ci naka la ñuy mën a jaaye li nga xam ne lii mooy ñor fii te ñun dañuy taxawoon ne jàppale leen surtout ci production phare mi di production oño ak mango te yaakaar naa ne du yéen laay wax ni daaw déggu leen fu ñu ne soble e, yàqu na fi déggu leen ni gas nañu soble suul ko déggu leen ni pombiteer yàqu na fi déggu leen ni mango e, lamb na fi loolu lépp c'est parce que dañ leen a préparé tàggat leen ñu xam ñan la ñuy jaay ak naka la ñuy jaayee mais dañu yamuñu foofu dañu ànd ak ñoom ñu génn gox bi génn dakaar génn zone de ñaay ñii dem Casamance ñii dem Kaolack am na sax ñu dem ci réew yoo xam ni ñu ngi suñu wet waxtaan ak ñooñu préparer campagne yu ren bii di campagne deux mille vingt quatre fii ñu toll ñoom xam nañu ñan la ñu war a jaay bu dee Kaolack bu dee feneen ak feneen ñooñu ñu ngi leen di xaar. du xaaruñu lu dul seen production ñor ñu waxtaan man leen jaay loolu liggéey la boo xam ni def nañ ko ak coopérative yi nga xam ni ñoom la ñu àndal li fa ñu la desoon nag te mu li loo xam ne lii dégg ngeen ko fii ñu junj ko moo di financement financement nag ren jii bu ci yàlla àndee ci loolu la pakaawo fas yéene ànd ak ñoom ànd ak ñoom ndax dinañu teg fond fond boo xam ne bii dara yëkkatiwu ko lu dul jàppale leen lenn li dañ koy def subvention di leen ko may di leen jàppale nu ñu mën a avancé leneen li kuréel bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee moom la ñuy lëkkalool muy banque day eh, di def di ci sukkandiku pour def leen ay prêt donc ñaari fànn yooyu yëpp am nañu yaakaar ni feeki fan dinañ ko mën a matale ba coopérative yi la ñu daan jooy xëj na dina wàññeeku ndax am mënuñu nag lépp waaye dinañ ci béy suñu waar ba seen coono wàññeeku te it ñu mën a nag nekk ci anam boo xam ni bis bu yàlla dogalee ndax léegi mu ñu yegsi ci pakawoo jeex ñoom ñu am seen taxawaay bu dëgër bu ñu mën a demale seen bopp. Je m'appelle Madame Ndeye Fatou Ndaw trésorière de la coopérative de la société coopérative Thiatly euh, qui s'étend de Touba Ndiaye comme l'a dit le président jusqu'à Sao. Euh, euh, les raisons de, de, de, cette Assemblée générale, vous savez nettement que chaque société coopérative doit annuellement faire une Assemblée générale. Pourquoi Annuellement, tu dois rapporter tout ce que tu as travaillé et puis les finances et tout ça, il faut que les gens le comprennent. Peut-être, comme on peut le dire, y a les adhérents, il les adhérents qui sont dans, dans, dans la coopérative, tels que les adhérents individuels et les adhérents des groupements. Donc il faut la transparence de telle sorte que à chaque année, on nous impose avec le système OADA, n'est-ce pas Il faut que chaque année qu'on fasse une assemblée générale. Les difficultés actuellement, on, a, on est avec euh, l'appui du PACAO, mais ça reste. Surtout, il y a l'accompagnement aussi. Le PACAO nous accompagne avec des formations de certaines, toujours, tout n'est pas Rose, il faut aussi qu'il nous encourage encore, nous appuie et nous appuie financièrement et nous, il nous appuie techniquement, mais il faut qu'il nous appuie financièrement encore sur ça. De telle sorte que les difficultés peuvent diminuer. Mais aussi, pour nous, il faut qu'on euh, qu nous renforce, qu'on renforce, nous renforce nos capacités, de telle sorte que, comme on l'a dit, il faut, il, on doit e-, être pérennisé. Mais la pérennisation, il faut un suivi, évaluation à tout moment, qu'on avec le PACAO, qu'on continue à tout moment. Les raisons, comme vous venez toujours de le dire, nous avons des difficultés au niveau de nos zones maraîchères. Les zones maraîchères, comme on peut le dire, il vous savez, dans la communauté, commune de Dar il y a 72 villages et 100 hameaux. Ces 100 hameaux-là, comme la commune de Mboro en fait partie. Mais ça, ça ces 100 hameaux-là sont dans le périmètre de restauration. Et, et en parlant de périmètre de restauration, les eaux forêts, c'est eux qui gèrent ce périmètre-là. Mais ce qu'on veut, il faudrait savoir que quelqu'un qui est né dans cette zone-là, s'est marié là-bas, est, est grandi là-bas, s'est marié là-bas, il a, il a des enfants et ainsi de suite. Et chacun, je pense bien qu'il doit avoir un lopin de terre. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir ça. Ce qu'on préconisait, c'est que euh, l'État euh, nous déclasse notre zone, nos zones. Mais en déclassant ces zones-là, il faut que nous aussi, nous euh, apportons des propositions. Comment ces propositions Il faut qu'en déclenchant ça, on nous met ça par, avec des périmètres aménagés. Ces périmètres aménagés-là, je pense bien que chaque propriétaire pouvait avoir un champ là-bas et y cultiver. Mais si on n'a on pas ça, le président l'a dit tout à l'heure, il y a les GCO qui, vient, les investisseurs sont là, les habitations sont là, et puis aussi, il y a les ICS qui est à côté de nous. Ce qu'ils ont pris, ça suffit largement. Comme nous sommes des maraîchers et que dans la zone, il faudrait savoir que c'est une zone à usage maraîchère, qu'il nous reste, laisse le reste afin qu'on puisse euh, faire nos exploitations familiales dans cette zone-là. Mais malheureusement, on n'a pas ça. Donc, c'est un cri fort. Donc, le Pacao est là à côté de nous. Il, peut, il, il est notre interprète au niveau de l'État afin qu'on puisse nous laisser nos terres, qu'on puisse bien cultivé. Le président l'a dit, l'année dernière, on avait vraiment, mais cette année-ci, on peut le comprendre aussi. Ce n'est pas nous seuls qui doivent avoir. Donc, ça a diminué. Mais aussi, au fur et à mesure, on continue de réclamer les semences aussi. L'État n'agrée que les semences de pomme de terre. Avec ces semences de pomme de terre-là, l'agrément de ces semences-là, si tu n'as pas un agrément qu'il faut, et que vous savez nettement que les semences de pommes de terre, c'est très cher. Donc, il faut tout faire pour avoir ça. Mais comme euh, je peux dire que un maraîcher de la zone des Niayes, tu ne l'entends jamais aller dans, dans, une radio pour dire que j'ai pas de semences, j'ai pas ci, j'ai pas cela. Qu'est-ce que nous faisons Nous faisons l'élevage. Avec cet élevage-là, quand la, la, la campagne arrive, on vend ce qu'on a pour aller chercher des semences. En plus de ça aussi, un maraîcher fait ce débrouille. Donc nous, euh, nous prenons nos, nos, problèmes de nos propres moyens, et, mais on, ça ne suffit pas, on faut que l'État nous y